mbokk internet yi ziar naa leen mbaa yéen a ngi am jàmm ma indilati leen histoire bu doyati waar cey Sénégal comme ni ma leen koy waxee lii benn xale bu góor la ndeysaan xale bu góor bi nee na ñaari at ci ginnaaw la ko histoire am bi nga xam ne moom la indi tey émission nettali la ko loolu daloon ba jàpp ñetti at nee na da doon liggéeyee ci benn cosmétique nee na bi nag mi ngi doon liggéeyal benn femme nee na femme bi nag jamono yooyu bi mu ubbee cosmétique bi daal di koy jël moom mu koy jaayal ci cosmétique bi nee na femme bi dafa ubbi woon compte Facebook ak Instagram uniquement pour di fa publier ay produits cosmétiques am bu ko defee di jaay ci en di def daal maanaam vente en ligne nee na nag ci noonu clients yi parfois bu ñu commandé daf lay laaj moom mi nga xam ne moo nekk ci boutique bi laaj la ndax daf lay tetal fi boutique bi nekk nga ñëw wala soo bëggee moom en personne mu daal di lay livrer li nga xam ne moo di produit yi nee na nag parfois mu dajee client yoo xam ne dañ naan ko noo jox ñu adresse bi ñu ñëw parfois nag mu dajee client yoo xam ne dañuy def commande ba pare daal di koy demander mu livrer leen ko nee na nag mook ndaw su ñuy liggéeyee noonu léegi nag moom su fekkee ne client bi dafa demander à ce ñu livrer ko nee na moom waaji ci boppam mooy dem livrer la mais su la livrer xaalisu livraison bi moom waaji moo koy moom par contre xaalisu produit bi moom da koy def ci versement boutique bi léegi nag moom livraison bi moom moo koy moom moom waa ji nga xam ne moom moo déplacé wu dem livrer la nee na mu dëkkee noonu dëkkee noonu ba ay jimmi jamono nee na jamono yooyu nag seen boutique bi mu ngi nekkoon Patte d'Oie nee mu dëkkee noonu daal dëkke noonu wax dëgg fa yàlla parfois mu livrer daa di gañe xaalisam daa di def ci poosam ba benn bis rek mu daa am benn cliente bu ko woo pour mu livre ko ay bagage ma ne ko ci cey nee na bi client bi wootee daa di jàmm santeeg moom daa di koy xamal ne ne ko diw nangam laa bëgg ay produit sàngam ak sàngam ba mu nekk ab lim ne na ndaw si ne ko moom laa bëgg nee na mu daal di demandé ndaw si ndax moom moo koy indil bagage wala ndaw si ci boppam mooy ñëw jël si euh, ay bagage am yi mu commandé nee na ndaw si ne ko noonoo dama bëgg yow nga ñëw livrer ma ko comme da ngay livrer nee ci noonu nag mu daal di bàyyi ba am temps mu daal di dajale produit yi nga xam ne moom la ndaw si demande mu daal di koy def ci sachet ba pare daal di woo ndaw si téléphone daal ne ko yow fan nga dëkkee ma daal lay indil a sa commande nee na nag ndaw si ne ko man maa ngi dëkke ville ci côté Auchan bi nee na bi ko ndaw si ne maa ngi dëkkee ville ci côté Auchan bi nee na après ndaw si daal di koy expliquer ba mu leer ba mu leer nee na nag ci la xamee ne moom kon cinq bi moo ko arrangé pour mu dem ville yóbbul ndaw si li nga xam ne moo di commandam nee na jamono yooyu nag ndaw si ville la dëkkoon foofu daal la ko fekkoon xamul nag ndax ndaw si mi ngi foofu ba léegi wala déet nee na bi mu ko ko yóbbulee ndaw si daal di jël bagage yi après daal di koy fay fay ko livraison wam après mu daal di dem yoonam nee na nag depuis ndaw si daal di garder di waxtaan ak moom parfois di ko message di ko nemmeeku di ko nemmeeku ci message yi des fois mu gis message yu ndaw si mu tontu ko fay ko rek daal di fay yem. nee na deux semaines après loolu ginnaaw bi mu yóbbulee ndaw si bagage yi nee na ndaw si daal di koy woo téléphone nee na mu daal di décrocher. nee bi mu décroché ndaw si jàmm santeeg moom ndeysaan nee na ñu jàmm sante moom tamit mu daal di jàmm santeeg ndaw si ba ne ko ana xale yi nee na donte ba mu fa demee gisul woon benn xale mais nag Sénégal dañoo baaxoo di nuyu nit naan ko ana xale yi surtout koo xam ne nag dafa toll ci mën a nekk waajur nee na nag bi muy waxtaan ak ndaw si ci noonu ñuy jàmm sante ci appel bi nee na ndaw si ne ko man de boo gisee ba nga fi ñëwee ba tey indil ma uh, produit yooyu ma commandé woon depuis boobu ba léegi maa ngi lay SMS di la woo di la nemmeeku dara rek waralu ko ndax ba mu la gisee ba tey danga ma nduroog sama benn doom bu góor boo xam ne dafa génn àddina te yéen ñaar benn ngeen du ngeen ñaar nee na ndeysaan bi ko ndaw si waxee loolu mu ne ko ah loolu de dëgg la yàlla moom koo gis rek en général ñaar la ciy defar kon xam naa man ak sa doom ji dañoo nduroo nee na ndaw si ne ko nduroo boobu nga nduroog sama doom ji nag jour bi mu fi duggee nga daal di may indil bagage yi depuis jour boobu daal sama xel mi dafa takk ci yow ndax nag danga nduroog sama doom jooju génn àddina ba egg ci lool ba tax na ma la koy xoolee comme nag danga nduroog sama doom joo xam ne dafa génn àddina su ma sañoon nga jàppee ma comme sa yaay ju jur man tamit ma daal di lay jàppee kom doom ju ma jur nee na mu daal di d'accord ak ndaw si nee na depuis loor nag moom ndaw si ñu continuer di déggante di déggante di waxtaan ndeysaan nee na mu jàppee ndaw si comme yaayam ju ko sukku jur ndax nag loolu la ko ndaw si woon nee un jour ndaw si xëy daal koy invité benn dimanche ne ko dimanche mi ngi waaj a ñëw dimanche bii di ñëw suma sañoon nga ñëw sama kër nga yendu si nee nag bi ko ndaw si waxee loolu wax dëgg fa yàlla tegu ci baat ndax nag comme ndaw si dane ko sama doom bu génn àddina ngay ndurool ba tax na bi mu fi ñëwee indil ma bagage yi ba tey dama laa jàppee comme sama doom jooju di la xoole bët yooyu nee na moom tamit mu jàppee ndaw si yaay ju ko jur ndax ndaw si loolu la ko wax nee dimanche bi nag bi ko ndaw si invité nee na moom ci boppam mu dal di accepté tegu ci baat nee na yàlla def dimanche boobu daa di ñëw nee na mu daa di dem ci invitation bi ko ndaw si invité ma ne ko ca ceyi yàlla baax na nee na bi mu demee ci invitation bi nee na mu egsi fekk ndaw si defar ndékki maanaam dressé taabal ji daal ba mu am jom nee na ndékki bi nag lépp am na ci waa ji nee na ndékki bi am na sax ay bonbon lépp loo xalaat rek am na ci table bi ak ni ko ndaw si dressé vraiment daal di defar ba mu baax ndeysaan nee na nag mu egsi ndaw si defaral ko mu ndékkee ndékki ba biiram fees nee na bi ko ndaw si defaralee ñu ndékki nee na après ñu toog di waxtaan nee na ndaw si daal di dem daal di toggu añam def ba mu baax nee na ñoom ñaar ñu daal di añ nee na bi ñu añee toog waxtaan tuuti nee na nag ma bëgg ñibbi ndax nag Dakar d'habitude dimanche ci ngoon day xat ba egg ci lool nee na nag bi mu bëggee ñibbi mu daan ndaw si man de wax dëgg fa yàlla yendu bi neex na mais nag heure ñibbi jot na ndax nag tey la dimanche te dimanche d'habitude ci ngoon Dakar day xat ba egg ci lool comme nag day xat bàyyil ma teel a dem su ko defee ma bën a mucc ci embouteillage yi nee na ndaw si ne ko moo toogal fii ba heure bu la neex nga ñibbi en tout cas sooy ñibbi man dinaa la jëlal taxi kon nag xoolal heure bu la neex nga daal di ñibbi mais heure bii moom teel na toogal ba si kanam nee na mu dal di toog bi mu toogee nee na mu toog fa toog fa moom ndaw si ñuy waxtaan di waxtaan di waxtaan ba nga xamante ne timis maase na ba toog na fa sax ba ci kanam kanam ba nga xam ne xam na ne léegi 22 heures di waaja jot nee na ci la waxee ndaw si nag bàyyil ma ñibbi ndax nag mi ngi guddi. nee bi mu jógee ne day ñibbi comme mi ngi guddi nee na ci la ndaw si duggee ci néeg bi daa di génne ab mbuusu yére daa di ko koy jox. nee na nag yére yi xam na ne yére yi doomam bi nga xam ne nee na dafa nduróog moom moom moomoon yére yi. nee na ndaw si jox ko yére yi ne ko yére yii de dama ne woon naa la ko dencal ba nga ñëw soo ñëwee ma daal di la koy jox nga yóbbaale ko nee na mu ne ndaw si d'accord daal di koy remercier nee na ndaw si jëlal ko taxi comme ni mu ko waxee woon nee na mu daal di ñibbi nee na ba ma ñibbee ma tekki mbuusu yére bi nee na ma fekk ci macha allah yére yu rafet a rafet te nekk qualité bu baax a baax nee na en même temps amoon na ay mayoog yëpp nag ndeysaan nee na ma xool yére yi ba mu yàgg ma xam ne maire bi wax na dëgg am na doomam bu tolloog man ndax daf ne ma yaag sama doom ji da ngeen a tolloo ba pare xaw a nduroo looloo tax yére yi ma dencal la ko nee na bi mu demee effectivement yére yi comme taayam la ba pare nag yére yi baax a baax bay bëgg a dee bees tàkk ak ay mayo nee na nag mu xool ndeysaan ni ko maire bi joxee yére yu bees tàkk ak ay mayo te mu xam ne doomam bu génn àddina moo ko moomoon nee na nag mu daal di jël téléphone am daal di SMS maire bi daan ne ko yaay booy wax dëgg fa yàlla jërëjëf li nga ne danga maa jàppee comme sa doom dëgg la ndax nag li nga ma jox nii yëre yu rafet la te bees tàkk macha allah. ñene daal di ñaanal doom ji yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana nee na maire bi ne ko merci ba pare mu ne maire bi wax dëgg fa yàlla doom a gën a gore xam naa ne sama loxo jotul sama ginnaaw waaye incha allah rabbi lépp loo xam ne soxla nga ko te bëgg nga ma lijjanti la ko mbaa ma doxal la ko sant ma ko soo ma ko santee dinaa la ko taxawu comme ni sa doom jooju bàyyee ko fi doon la taxawoo nee na maire bi ne ko d'accord amul benn problème nee na ci depuis lor nag moom maire bi ñu continuer encore di déggante di messageante di sante chaque jour nee na maanaam daal moom mu jàppee ko comme yaayam nag nag bëggu ko taxawu comme ni ko doomam ji fi bàyyeekoo doon taxawoo ndax nag mère bi dane ko yow ak sama doom ji benn ngeen da ngeen a nduroo ba pare tolloo te nee na wax dëgg fa yàlla yëre yi prouvé que ne dañoo tolloo ndax vraiment yëre yi taayam la nee na nag ñu dëkkee noonu dëkkee noonu muy nemmeeku meer bi di xool ci lu mu ne comme mère bi da koo nduróole ak doomam nee na ba yàlla def loolu daal di am deux mois nee na bi loolu amee deux mois mu xëy benn jour rek mair bi daal di koy woo téléphone invité waat ko ne ko ñëwal kër ga ndax nag gëj nga fi nee nag bi ko bi waxaatee ñëwal kër ga ndax gëj nga fi nee na mu d'accord ndax nag dafa jàppee maire bi comme yaayam te mi ngi ko doon woo di ko nemmeeku ndax nag bëgg rek mair bi xelam dal xam ne mu mel ni daal comme doomam ji fi bàyyeekoo moo fi nekk ba tey nee na mu am ñaari weer maire bi newaat ko ñëwaatal ndax depuis loor gëj nga fi nee na nag tegu ci baat mu daldi di wuyu jiwaat invitation maire boobu nee bi mu demee yàlla def mu egsi ci jàmmak salaam nee mu egsi maire bi xam na ne dafa bëgg kafe ndax dem na fa ñaari yoon benn bi yendu na fa maire bi xam na ne kafe seytaaneem la nee na mu egsi toog tuuti rek nee na maire bi daal koy defaral kafe nee bi ko maire bi defaralee kafe nee na ndekete yoo ndekete yoo kafe gi dafa am lu ci rax maanaam kafe plus la ma ne ko ca cey nee na mu naan kafe gi nee na avant mu koy naan sax mère bi kafe kese la ko jox ba pare ni ko da dem sucre mu ngi ci waañ bi nga suukaral ko sa bopp nga daal di naan nee na mu dem daal di koy suukaral boppam daal di yëngal daal naan nee na bi ma ko naanee nag dama ka naan rek sama sàkkara bi taxaw ñi xamul sàkkara moom sàkkara la ma wax mais ñi xamul sàkkara nee na daka naan rek Ablaay njaayam bi daa di taxaw nee bi ci saa si kay maanaam affaire bi dafa def effet bu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw da koo naan rekk sàkkara bi taxaw ndeysaan nee bi mu taxawee moom mu ngi woon ci saal bi nee na mu profitoo daal di toog ci kanaape bi pour nëbbu meer bi sàkkaraam bi nga xam ne dafa taxaw ndax nee na bëggul woon maire bi gis ko comme meer bi da koo ne da koo jàppee comme doomam nee na nag meer bi bi ma bi may jéem a nëbb sama sàkkara bi nga xam ne dama naan kafe rek mu def effet ci saa si daal di taxaw rek bañ a tëdd nee na ma koy jéem a nëbb di ko jéem a bës di ko nëbb ba far toog ci kanaape bi nee na ba pare mel ni xarum yar daal di toog rek nee na ci la maire bi ñëwee daal di may approché ne ma yow lan la ma ne ko noo dara xewul nee na maire bi ne ma ah yow boo fi musaana ñëw da daawoo mel nii mais tey nga ñëw indi beneen melokaan lan moo xew waaye nee na moom xam na ne maire bi xam na lépp ndax meer bi xam na ne lim ma jox ma naan loolu su ma ko naanee lii la may def mais nee na ba tey rek ma continuer di ko nëbbu doonte sipsose sipsose sipsone na naa baal ma de <laughs> doonte sipsone naa maire bi xam na li ma dal nee nag ma continuer di ko ko nëbb nee na maire bi di insister naan ma wax ma lan moo la dal wax ma lan moo la dal nee na nag man xam naa ne moom xam na li ma dal mais man ma continuer di ko nëbb ba mu insise naan ma lu la dal nee na ci laa ko waxee ne ko sama sàkkara bi dafa taxaw lànk bañ a tëdd nee nag ci la ko maire bi waxee comme ca dafa taxaw bañ a tëdd léegi da ngay dem ci salle bi soo demee ci salle de bi nga jéem a saw mun na am boo sawee affaire bi dina dellu daa di reesaat ma ne ko ca cey si ma ne ko ca cey <laughs> dina rees kay yàlla baax na nee na mu ne d'accord nee na mu jóg di saw maire bi ne ko duggal sama néeg nga dem ci salle de bain bi nga daa di saw nee na mu dem dugg ci néegu meer bi dugg ci saldabin bi di saw mais na saw na ba pare taxul affaire bi taxu ko rees maanaam fa mu nekkoon rek la nekk nee na nag mu saw taxaw xaar pour affaire bi rees mais na affaire bi reesul fa mu nekkoon jógu fa neena nag ci la solaate tubayam fa yéenee génn saldabin bi nee na bi muy génn salle de bi génn rekk daldi di mbëkkanteeg maire bi ci buntu salle bi ndekete maire bi topp na ko ba taxaw ci buntu saldabin bi di ko xaar nee na mu daldi génn mu ne meer bi ah man de saw naa waaye affaire bi ba tey fa mu nekkoon jógu fa nee na maire bi ne ko man de sama doom depuis ba fi duggee ba tey indil ma produit yooyu ma la commandé woon boobu ba léegi sama xel dafa nekk ci yow nee na ba pare maire bi ne ko comme sama xel nag dafa nekk ci yow dama bëggoon man ak yow ñu def affaire u jabar <laughs> maire bi neex na nee na mu ne maire bi affaire u jëkkër ak jabar affaire u jëkkër ak jabar kay bala ñu koo def bàyyil ba ñu takkante ba nekk ay jëkkër ak jabar bu ñu nekkee ay jëkkër ak jabar man nag yow ñu def yëfi jëkkër ak jabar mais nekk gu ñu jëkkër jabar nga naan ma kaay ñu def yëfi jëkkër ak jabar nee maire bi ne ko en tout cas daal sama xel dafa nekk ci yow te yëfi jëkkër ak jabar laa bëgg ñu def ko soo bañee nag te sama biir néeg nga nekk su ma neexee ma jiiñ la sàcc te su ma la jiiñee sàcc ku ñëw fekk la sama néeg danaan dëgg la da nga doon sàcc ma ñëw jàpp la nee maire bi daal di koy wax loolu nee na nag en plus tamit moom it sàkkaraam bi mi ngi taxaw vraiment ndax nag li mu naan xam na ne ci kafe gi lañ ko def ba poussé na ko à ce que sàkkara bi taxaw mënatu wàcc te nee na imagineel tamit sàkkara bu taxaw nga nar a ñibbeeg moom <laughs> oto boo oto boo dugg di nga def bës boo ko na di baal leen ma de histoire yu reetaanlu na nag wax dëgg fa yàlla am na ñaari ñaari poñe yuñ ko poñe benn bi maire bi nee na ko dinaa la jiiñ sàcc deuxièmement bi sàkkara bi taxaw na su ko deful day dem di ñibbi sàkkara bi taxaw léegi nag oto bu mu dugg nit ñi defa ne dafa dugg pour violer jigéen ña ne ci oto bi te loolu mun na koo indil musiba naaru laay ba pare nag nekk nañ njàkkare ci moom maire bi nee na ko nañ def yëfi jëkkër ak jabar mel ni xale yooyu nga xam ne bu ñu nekkee di fo xale yi xale yu am cinq ans yi bu ñuy fo ba naan dañuy def fowu papa yaay naan ndekete maay ndekete maay yaay ji maire bi nee na ko nañ def yëfi <laughs> jëkkër ak jabar nee na nag jaaxle yooyu yëpp nag daal di koy dikkal mbokku internet di ndeysaan nee na à mu daal di accepter li maire bi wax nee na mu daldi di sekk bi nee na li mu njëkk a seetlu ba njëkk ko seetlu nag xamul ndax produit bi mu naan la xamul mais daal nekk na ci kaw maire bi quarante minutes yoo xam ne mënul wàcc maire bi mënul fexe fexe fexe ngeen baal ma ba daanu nee na 40 minutes yoo xam ne mënul fexe ba daanu nee na xool na heure bi tellement que affaire bi dafa yàgg ak produit bi ñu ko jox mu naan def ko ci kafe gi moo ko yóbbee loolu. nee na nag li ko ci jaaxal ba jaaxal ko aussi depuis lors quarante minutes lay def ci kaw nit te du daanu nee na xamul ndax produit bi moo ko def xamul ndax kattanam ci boppam moo ko def. nee na nag mbokku internet yi lu tax mu indi nettali bi émission nettali aussi. ndax nag depuis bi ko maire bi joxee kafe boobu mu naan nee na xamul ban façon produit la maire bi def ci kafe bi mais daal sàkkaraam bi depuis dafa gën a rëy maanaam gën a gudd te nee na chaque jour que jëfee affaire bi on dirait que day yokk maanaam sàkkaraam bi moom sàkkara lay wax nee na sàkkaraam bi daal depuis day gën di rëy di gën di gudd nee na nag affaire bi da ko tiital ndax nag depuis bi mu naanee kafe boobu ba tey sàkkara bi day gën di rëy di gën di gudd chaque jour rek on dirait que day yokk nee nag dafa tiit ndax feebar la wala du feebar beneen bi aussi mooy depuis bi mu sekkeeg maire bi am 40 minutes ci kawam ba tey depuis loor tamit 40 minutes rek lay def du mënul fexe fexe ba daanu à part 40 minutes yi jotul seetlu na ko depuis loor te nee na melul woon noonu avant maire bi di ko jox kafe bi muy naan te nee na chaque jour aussi sàkkara bi day gën di yokku rek di gën di yokku ba pare muy yàgg ci kaw jigéen lool ba egg ci lool nee na loolu jaaxal na ko nee nag wax dëgg fa yàlla mbokku internet di solution la bëgg ndax dafa bëgg a xam produit bi ko maire bi jox mu naan ko feebar la ko dugal feebar la ko la ko def wala ndax nag loo xam ne day gën di yokk di gën di gudd loolu tiital na ko mun na am loo xam ne naturelul te day ragal mu xëy un jour affaire bi jural ko feebar boo xam ne da ciy jaaree mu yàq àddinaam ba faaw ndax nag chaque jour rek depuis bi mu naanee produit boobu sàkkaraam bi chaque jour muy gën di yokk ci moom chaque jour muy gën a gudd ci moom te en plus munul fexe fexe depuis lors gaaw a yëg boppam day dema dema dem ba sonn pour mu yëg boppam ab problème la nee na nag looloo tax mu daal di indi nettali bi émission nettali pour ngeen jàppale ko ci solution la wax ko ndax loolu feebar la wala tamit xëy na moom kàttanam def wala produit boobu moo nekk loo xam ne mën na koo indil ay complication ndax chaque jour rek day sentir euh, sàkkare bi gën a rëy wala gën a gudd ay ca mbokku internet di lii lañ leen indiloon tey ci ci wàllu nettali mu ngi nii nag Sénégal daal doy na waar moo tax nag bëgg kafe foo dem naan kafe wóorul man bëgg naa kafe waaye nag émission nettali laay naanee kafe wala sama kër laay naanee kafe am na yoo xam ne moom doy na waar du foo dem rek luñ la jox nga daal koy naan parce que nag am na ñoo ci loolu la ñuy profito daal di lay jox loo xam ne dafa surnaturel nga naan ko nag sa àddina daal di yàqu moo tax am na yoo xam ne bu nekkee sa bëgg-bëgg euh, choisiral fi nga koy naanee fi nga koy naanee choisir ko wala boog boo koy defar nga defaral ko sa bopp yow kese nga xam ne yaa ko tiim defaral ko sa bopp nga xam ne lii yaa ko defar mais nit jóge fee rek ne la ko am parce que xam na ne sa bëgg-bëgg la bu la ko joxee di nga naan bu ko defee nag mu daal di lay jural ay complication mi ngi noonu ay ca sàkkara buy xëy di yokk moom di xëy di gën a gudd moom ah loolu de doy na waar xaw naa raglu aussi ndax nag bu fekkee loo xam ne da koy gonfale te melul woon noonu wóorul en tout cas lu ci mënti nekk daal mbokku internet yi nga xam ne yàlla may na leen xam-xam ci loolu dinañ la wax ban façon produit lañ la jox ak lu waral produit bi di yokku sa saakara bi ba pare di ko gën a guddal ba pare di def ngay yàgg lool ci kaw ay ca mi ngi noonu di leen jaajëfal bu baax a bax di jaajëfal suñu DG Sey Latir papa Sey moo nekkoon ci caméra bi ñu koy jaajëfal bu baax a baax nuy équipe technique bu Info yëpp di leen ziyaar bu baax a baax leen joxaat dig daje suba incha allah ci yeneen yi nettali d'ici là portez-vous bien et bonne suite de programme sur Info ñu daal di koy terminer ak suñu kaasu café